من الحق جاء الحق للحق في سبيل بياق بين الحق يعني من سبيل من الحق جاء الحق وللحق في سبيل بياق بين الله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 الشيخ محمد منتخى الشيخ محمد البشير كالف جنرال كل مريت نيانال كوما ياغ في لول توير نيانال نجابوتو سيرن توباي نيانال كليفا دين يي نيك تي ريوم بوكي لي موي قصيده اك سيرن توبا من الحق من الحق جاء الحق للحق في سحبي بحق مبين لا يحانيه من سحبي doon xasida koo xam ne sëriñ bi mi ngi ko bindee ca cooyan jolof donta génne woon na ko ci njaarim di ko wan mag ñi bi mu ko génne itam waxoon na ci ne képp ku ko xool sa yaram araam na safara ku ko xool rek waxul sax ko mokkal ku ko xool rek safara waaye ba keroog doomam ju tedd ji di gane jamono muy sëriñ Abdullahi borom dër bi nga xamne ku niri won sëñ touba la ci jëf ci waxin ci doxin man nga ne njabootu bi yépp niru sëriñ bi waye mom mom da ko niri won ci lepp ba ci wax ci lepp gis nga sax mom sëñ abdullah borom deur bi ay domam dañ ko niru nim won sëñ touba itam ay doomam non lañ ko niru ci wax ci lepp tabarakallah kéré bi mu gënee jamono nag ci cooyoon jolof ci la sëriñ bi talif xasida gu tedd gi dal ne képp ko ko xol sa yaram safara ak képp ko xam mokal nako itam sa yaram safara qasidi gi dafa ñoo ngir bàkk alquran di tagg alquran téere boo xam ne téereb dëgg la bàyyi ko ci borom boo xam ne mooy dëgg waaye wàcc ba tey ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne kon mu mel ni kon ñetti dëgg la fekk genn rek la <laughs> yàlla rek mooy yàlla yàlla rek mooy dëgg su ko defee nag leneen lépp alquran ak yonent beeg ñoom ñëpp ci yàlla lañ bee ko ndax yonent bi noorun minallahi la waaye alquran itam noorun minallahi alquran leer la ko ci yàlla waaye bi leer la ko ci yàlla qad jaakum noorun wa mu mubiin kon sëriñ bi génne woon na ko ci njaariñ bi mu ñëwee njaarim daal di ne képp ku ko gis sa yaram aram na soxla waaye mi ngi ko taarifee ci yoon jëlax keroog bi sëriñ Abdullahi borom dër bi gane sa jamono. loola li muy tekki rek mooy ci ak mujjug dundam la te sëriñ bi waxoon na ne bu ngeen lépp lu ngeen bëgg muy lu àdduna wala lu àllaaxira man ngeen koo sàkku ci sama xasiida yi waaye rawatina xasiida yi ma mujj a def walla bokk mu ne yi nga xam ne dama ko def ca ginnaaw géej ga euh, xasida gi guddul naam waaye am na ay nettali yu yéeme ñu jël ci rekk benn wax nañ na keroog ba ko sëriñ bi defee radiyallahu anhu wa ardaahu da ko koppiyelu ñi di ko tasaare ci mbooloo mi di wax na na ko ñépp xool képp ku ko xool dana ci amee pajug aajo adduna ak àllaaxira loola day lu ñu mën a wax rek ci kaw nii waaye ci dëgg-dëgg mbindum sëriñ bi moom li mu làmboo yàlla rek moo xam la ca nekk ci ngëneele kiy jagle xasida ak euh, min alxaq alxaq li muy tekki mooy vérité mooy dëgg xasida la xasida xam ni Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala da ci melal alquran mi nga xam ne mooy buum gi yàlla yoor suñ digganteek moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a ak saxaaba yi bis ba yàgg mu ne leen wa absiro fa inna asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fa tamasuku bi mhm. yéen jullit ñi bég leen figéré leen yëkkati leen seeni wagg ndax yàlla yoor na buum ngu dox seen diggante moom ñu di ko tudde alquran dafa amee ñaari cat benn cat li ñaari calkalaam lenn calkali ma nga ci loxol suñu borom leneen la ci des mi ngi ci seen loxo yéen jullit ñi sëñ Tuubaa gis ni alquran moom mooy buum gi suñu borom yoor diggam ak jaam ñi bi muy tagg alquran nag mu tudde xasiida gi mun al xaq min al xaq mooy li nga xam ni moo bàyyikoo ji moo bàyyikoo ci aji dëgg ji mhm. te mooy suñu borom rabbi sit wa jàlla mhm. moo tax mu tuddee xasida gi titre bi nekk minal xaq jaaxal xaq mhm. waaye rapport bi doxoon diggante alquran ak sëñ mooy rapport bi doxoon diggante alquran ak yonante bi sallallahu alayhi wa loola tax mu ni minal xaq jaaxal xaq lil xaq fi sax bi bi xaqin mu biin laa yu aanihi min sax bi nee na dikk na ñu ne ko lan mo dik mu ne xana lu degguli vérité ci kum bayiko mu ne xana ci aji dëggu ja ci kum dik mu ne xana ci aji dëggal ji mu ne wa jamono bi muy dik fu mu fekk aji dëggal ji mu ne mi ngi ko fekk ci bir sahaba yi fi sahbi ci bir sahaba yi la ko fekk sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj ñu ko alquran buy wàcc ci yow nu muy mel mu ne ñaari étape la léeg-léeg buy wàcc ci man jibril day ñëw rek yore melaw kenn ci saxaaba yi wax bu waxee ma dégg li wax xam ko mu daal di dem mu ni waaye léeg-léeg nag bu ñëwee day mel ni ku yor benn wall wall di ko yëngal muy def kasang kasang kasang sama nopp bu nekk kaccat rek ma daal xam li mu wax moo tax suñu borom di wax ci alquran naa ko mhm. laa tuxarik bihi lisaanaka li taxjale bihi inna alaynaa jamhu quraanuhu léeg-léeg nag bu ñëwee melaw saxaabi yu lay amee wax mu dégg mu dal xam li mu wax lu mu doon mu ni jamono boobu nga xam alquran a ngi ñëw bàyyi ko ci yàlla mi nga xam ne alquran moomu nga xam ne mooy dëgg ci yàlla miy dëgg ci muhammad mi nga xam ne aji dëggal ji mu ne jamono boobu mi ngi ko fekk ci yi mu ne bi jibril mi nga xam ne indi alquran moom it di ko te dëggal mu kenn amu ci lu ñuy sikki mu ne alquran moom laa yu aaniihi min sax bi mhm. ak jafeñ-jafeñ du ko gaar mhm. suñ borom daa ci alquran ni fa hal min mu daf ni wala qad yasarna alqurana li dikri fa hal min mu dakkir mhm. suñ borom nee waaw alquran du maa ko yombal ginnaaw maa leen ko yombalal nu muy jafeeti sëñ Tuubaa ne alquran amul ay jafeñ-jafeñ saa boo ko bëggee mokkal rek so amé li ñi tuddé asmu ndogu rek suñu borom defal nga daal di koy mokal muni la laa yu aaniihi min sahbi jafagn jafeñ-jafeñ gar mom alquran lim wax ni jahal haqq bi ne min alhaq jahal haqq lu alquran wax suñu borom dani yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa khul jahal haqq wa sahaq albatil in albatil kana sawqa yow Muhammad waxal ma gañi ne len deug ñewna vérité ñewna muni gis nga deug bu xësee ñëw nentu tuxu bu deug ñewé rek nentu ko mu del waxat ko ci benen ay ni ko khad jaakum min allahi nurun wa kitabun mubin dikkal na len yeen julit ñi téré bo xamni lèr la téré bo xamni dafa lèr ba gëna lèr jantu digg njolloor téré boobu mo len dikkal téré bi ci kum bayiko ci sun borom muni wa ansalna ilayka alkitaba haqq musaddiqan lima bayna yadihi min alkitab ñun yalla ño wacc téré bi ci yow Muhammad waaye bil xaq ci dëgg. téere bi dafa ñëw di confirmer téere yi ko fi jiitu woon musaddiqan lima bayna yadayhi dafa ñëw di confirmer tawraat injil saboor téere yooyu nga xam ne ñoo ko fi jiitu woon alquran dafa ñëw di leen confirmer sëñ Tuubaa ni téere boobu nag moo bàyyi koo ci aji dëggu ji tey aji dëggal ji mu ne kitaabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa oxra min al karbi ba tey ci xasiid ak min al xaq mu ni téere bii di alquranul karim man sañ tuuba ci laa yaakaar yërmande yàlla ji nga xam ni moo daj asamaan moo daj suuf ci téere suñ borom bi ci laa yaakaar yërmande jooju mu ni ci téere boobu laa yaakaar a mucc ci lori addina yi alaxira yi moom uh-huh. alquran uh-huh. mu ni téere boobu ci laa yaakaar a mucc ci lépp luy njàqare lu suñ borom wax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran uh-huh. wa nu nasilu min alquran maa huwa wa rahma ñun yàlla dañoo wàcc alquran pour mu résoudre problème yi boo ñu la njibaree boo jàng alquran njibar ga deñ boo bëggee teraanga boo jàng alquran am ko suñ borom ni man maa wàcc alquran pour mu nekk yërmande waaye mu nekk shifa nekk yërmande joo xam ne day dajale moo tax sallallahu alayhi wa sëñ Tuubaa nar kitaabun bihi narjo minallaahi rahmatan wa nanjo bihi dunya waxra minal karbi téere bi yàlla bii ci laa yaakaar yërmande moo wala ko doon misaal daa mel ni doomu aadama yëpp dañoo daje taxaw ci ginnaaw sëñ Touba ni ko sëñ Touba de ñun yow lañ yaakaar sëñ Touba waaxu ba ci ginnaaw alquran ni ko alquran man yow laa yaakaar mm-hmm. kitaabun bihi narjo min allaahi rahmatan mm-hmm. waaye wanan bi bihi dunya uxra min al karbi njàqare yi nga xam ne moom la ñu am fii ci àddina mm-hmm. ak yi nga ne mooy xew yowmal xiyaam téere bii laa ci yaakaar ëllëg yowmal xiyaam akbar suñ borom nag wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wa nunazzilu min alquran ma huwa sifaan wa rahma lil muminin wala yasidu saalimina ila xasaaran ñi nga xam ne nag ñoom gëmuñu yàlla gëmuñu téréb alquran bi defe nañ ni amna na leneen lu gël alquran sun borom ni ñooñu mom alquran du len dikke dara yowmal khiyam lu dul perte nga la qadra allah wala saman yonente bi sallallahu alayhi wasallam dani majtamaa qawmun fi baytin min buyuti buyutillahi yatluna kitaba kitaaballahi wa yatadaarasuunahu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa qasiyatuhum arrahma wa afinatuhum almalaika wa dakarahum allah fi man indahu sallallahu alayhi wasallam sallam amul amul wenn xet wuy daje ci benn néeg néeg ba ñu di ko askanale suñu borom ñu daje fa di jàng téereb yàlla bi di ko jàngalante lu dul yàlla dana yebal ndiiraanu malaayika ñëw cercle leen jël seen ma yërmande xëpp leen di leen aar ñu am sécurité mu ni su ko defee suñ borom ci boppam day jóg di bàkku ci benn kuréel ci kuréelam yi naan yéen sama kuréel bii yéen sama jaam ñi xool leen sama gaañee xol leen sëriñ daara ye sëriñ daara ye ñi tuumal naan ay kat drogue lañ xol leen sëriñ daara ye nga xam ñom lañ wax ne ñom ñoy def nangam xol leen ña nga de sama malaaka yi wër leen sun borom di leen tuddu di leen fàttaliku di leen damo ci kuréelam bu mag ba jundulaay xaali biin loolu la yonante bi sallallahu alaihi wasallam wax motax tax touba nak nag xamé ni alquran mustawa bobu la am waxi sun borom la mu daldi nak mooy ci buum googu yonent bi waxoon ni moom la yàlla yoor suñ digganteeg moom mu ne rajaw naa minal mawla bihi xayra bi wa fus naa bihi fii kulli daf in wa fii bi mu ne man sëñ Touba rajaw naa minal mawla yaakaar naa ci sama borom ñu ne ko lan nga yaakaar mu ne sama yaakaar ci sama borom ma di ko sàkku xayra matlabi la wax de li gën ci li may sàkku mu ne ci war may alquran mii la ma ko yàlla defalee mhm. mu ne ci alquran laa làqe daf uwa jalb mooy ñoddi ak jañ nee na ci alquran laa ko làqe secret bi nga xam ni loo ca jañ mu sori la loo ca ñoddi mu ñëw nee na maa ngi ko jëlee ci alquran daf uwa jalb mu ne ci barkeb alquran laa ko amee suñ borom day rabistoo jàlla bi muy defal xolub gaa yi jàng alquran te ñu leen di caricaturer mhm. wax na lu mel noonu suñ borom dani inna lasina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma rasaxnaahum sirran wa alaaniyatan yarjoona tijaaratan lan taboora suñ borom nee na sama jaam ñi nga xam ni foo leen fekk ña nga ca téere ba di ko jàng ak a jàngalante yemuñu te li leen yàlla di wërsëgal lu mu tuuti tuuti dañ koy jël di ko dépasse ci luy tax téere bi doom aadama yi mokkal ko mu ne sama jaam ñooñu buñ koy def ci lu nëbbu ak ci la ñuy boole siran wa alaaniya mu ni ñooña sikki sàkk nekkul ci ni seen yaakaar du tas yow mal xiyaam ñooñu seen commerce réussir nañ ko yow mal xiyaam seen yaakaar du tas loolu la suñu borom wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran karim sëñ Tuubaa nag ni man sama yaakaar ci alquran ngën gi li may sàkku maa ko amee ci alquran waaye ci alquran la ma yàlla wërsëgale secret boo xam ni ci laay def li ñuy tudde daf wa jalb ma mhm. soxlaa dara su ma xëccee mu ñëw mhm. mu del mom moom sëñ Tuubaa ci bir khasside gi ni laqad sara kënsan baqiyan hisatan lana yaqina bihi al mawla hasa kulli si muni ci tire bi di alquran dama ko japp di jang diko di top tire bi mujj tire bi nek sama trésor laqad sara kënsan da mujj nek sama trésor Al alquran ay sama trésor moy sama compte banque mu ne la xisatan lana alxuraan daa mujj far des nekk sama teraanga alxuraan uh-huh. léegi daa mujj des ci samay loxo nekk sama teraanga di ma teral fu ma toll uh-huh. mu ne alxuraan moomu moo ma fegal moo fegal lépp luy lor yaqiina bihil mawla la wax moo ma fegal lépp luy lor uh-huh. ñu ni ko lori lan mu ne lori jëpp daaba juy dukkat ci kaw suuf moo xam daaba ju am ñaari tànk la wala daaba ju am ñeenti tànk wala daaba joo xam ni sax biiram lay doxe daaba juy dox ci kaw suuf rek suñu borom musal na ma ci aw ayam ci barkeb alquranul karim suñu borom dañu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran wa rabbukal ghani su rahma sa borom sa borom mooy borom tiraanga ji nga xam ni tiraangaam du jeex mukk mukk te mooy borom yërmande ji mu dellu waxaan ni maa indakum yanfadu wa maa inda laahi baaxi uh-huh. loo yaakaar ci loxol doomu aadama dana mas a jeex li ci sama loxo man yàlla rek moo dul jeex sëñ Tuubaa nag ni alxuraan mi nekk ci loxol yàlla mooy sama tedd nga mujj na sax nag des doon sama teraanga teraanga ju dul jeex nekk sama trésor nekk sama compte banque. minal xaq xasida la goo xam ni secret yi nga xam ni alxuraan dana ko jariñ ku koy jàng sëñ Tuubaa indi na ko ci wax na ko ci. Uh-huh. wax na ni xasida gi tax na yàlla xamal ko secret boo xam ni. xamalu ko keneen ku dul moom nee na alquran mii tax na yàlla xamal ma benn secret boo xam ni man rek la ko yàlla xamal moo tax mu ne isa ma talaw naal aaya fus naa bi maxtafa ala xayrina min sirrihil jaalibil xubbi mu ni saa bu ma jàngee benn aay alquran rek aay boobu yàlla dana ma ci xamal loo xam ne mosu koo xamal kenn ku yàlla bind boo gisee ni mu daan firee alquran ni mu daan firee alquran ci ngay xamee ni Euh, bayit bi dëggal na wax jooju le mhm. bi muy laaj mag ñi ne waaw waf alool xayra nu ngeen koy fire na mhm. ne waf alool xayra da mbàkke mooy def leen aw yiw mhm. waf alool xayra mu ne mooy def leen aw yiw mu ne waaw waf alool xayra de li muy firi mooy baatu waf aloo boo ko seetee dalay jox juróom-ñaari araf Mhm. alxayra jox la juróom mu ne li muy firi mooy seen juróom-ñaari cër yi na ngeen ko saxal ci juróom-ñaari ponk lis ci juróomi ponk lislaam yi seen juróom-ñaari cër yi mhm. na sax ci juróomi ponk lislaam yi kon li mu wax ni man bu ma jàngee benn aaya yàlla dégtal ma ca xamal ma ca lu mu xamalul keneen mhm. moo tax mu wax loolu moo tax mu ne isa ma talaw naal aaya fus naa bi maxtafa lu nëbb ci aaya bi rek yàlla daf ma koy xamal tabaraka wa taala moo day sun borom loolu la wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran sallallahu alayhi wa sallam suñu borom dane wa ansala alayka bil daf dañ ko wa ansala allahu alayka alkitaba wal hikma wa allamaka ma lam takun tahlam wa kana fadlullah alayka hasima ci suratul nisa ñun yàlla wa ansala allahu alayka alkitab ñun yàlla ño wàcc ci yow tire bi di alquran wal hikma ñu wàcc ci yow xam-xamu baatin muni jamono bobu lañ la xamal lo xamutoon wala maka malam maalam takun taxalam xamal lañ la ci batin lo xamni xamoko won yow yonant bi sallallahu alayhi wasallam sallam la seigne Touba doon ne ci yonant bi motax ma wax la sank ni la rapport bi doxon digeunte rasulullah ak alquran alayhi salaatu wasalaam dox digeunte seigne Touba ak alquran fa rasulullah tegoon alquran fala seigne Touba tegoon alquranul karim muni qahrna bihi alahda ahda turan waxaadana ilal akramil wahaabi fil buhdi wal qurbi nee na ci téere bi yàlla bii di alquran ci la ma yàlla notale sama noon yi mhm. téere bii di alquran ci la may yàlla notale sama noon yi ñu ne ca lay mu ni déer yàlla wammatal ma nag tiraanga jëmee ci man wammatal ma ay may jëmee ci man mu ni ci lu jege ak lu sori nag mhm. fil buhdi wal qurbi lu jege ak lu sori ci la yàlla wammata tiraanga jëmee ko ci man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom daf na wax ci alquran ni yéen jullit ñi képp kenn ci yéen ku bëgg saa dajeek dajeeg say noon gañe leen foo tollu del jàng alquran foo tollu del tudd yàlla suñ borom ni yaa ayyuha lasiina aamanu iza laqitum fi'atan fas fasbutu waskurullaha kasiran la'allakum tuflihun yaa ayyuha lasiina aamanu iza laqitum fi'atan fasbutu waskurullaha kasiran la'allakum tuflihun yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla bu fekkee bëgg ngeen fu ngeen dajeeg seeni noon jàgg leen ruur sax leen ci tiiram yàlla bi diko jang guddé ak bëccëg seigne touba ni man nak ci téereb yalla bobu sax gima sax ci diko jang ci lama yalla notalé samay non radiyallahu taala anhu qasida min al jahal jaxal xaq lil xaq fi sahbi qasida la go xamni bu fekkonte ni ca deug deug dëgg ñun wa Sénégal xamnañ mbot mi qasida gi lambo danañ boole ñaar mooy fu ñu jàngatee alxuraan bu nuppi sax moom lañ koy xatmoo. macha allah fu ñu jàngatee alxuraan bu nuppi. Uh-huh. moom lañ koy xatmoo ndax li mbootum xasiida gi làmb rawatina nag bu ñu séentoo lu ñu ragal. Uh-huh. rawatina bu séentoo lu ñu ragal. laala salama bi mu jógee Makka. Euh, Madinatul Munawara ba conquérir Makka. ñee fekk ñetti téeméeri xiram ak fukk ñett ca Kaaba ga. Uh-huh. mu ñëw jël yatam wi. di leen ko joxuñ di leen këmax naan xul jaaxal xaq wasa xaqal baatilu innal baatila kaana sawaqa xiram yi di daanu ba xiram yëpp daanu ba jeex mu des xiram nga a kaw mhm. mu ni Seydina Alin karamallaa wajha ah, kaay tungoom ma Seydina Ali ñëw tungoom yonent bi attunu ko ndax nubuwa nekk ci moom mhm. sallallahu alayhi wa sallam ne ko wàcce mu daal di wàcce sallallahu alayhi wa sallam tungoom Seydina Ali ñu ko daaneelal xiram bi Seydina Ali nee na bi ma yonent bi tungoomee nee na bi mu ne sigget taxaw bu ma tàlloon sama loxo teg ko asamaan eh. radiallahu taala anhu ay waay ñun waa Sénégal ak a neexoon ñu jàngat sëñ Touba eh. mm-hmm. sëñ Touba radiallahu anhu mm-hmm. boo gisee xasidaam yi mu di ko tënkee par ayal Qur'an mm-hmm. ayal Qur'an man nga cee xamee xasida bu nekk bu koy way xaala bi mu toll xaala bi mu xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ngeen bëggee xam fu leen yàlla toll fu ngeen toll yàlla xol leen fu leen yàlla toll boo bëggee xam foo toll yàlla sa daraja num mu toll ci yàlla seetal nu yàlla toll ci sa xol rek jamono boobu nga xam ne mi ngi imaginer bi yonent bi di màbb yàlla yéefar yooyu le muy xiram yi l'islam di folote mu dal di jug rek ni min al xaq jaxal kenn ku ne xam na ni alquran la mhm. sallallahu alayhi wasallam ba muy mab euh, xërëm yi ca kaaba ga mhm. alquran la àndaloon mhm. mu delu ci wat lolu moo tax suñ borom ni ku bëgg foo ak say non am ndam saxal ci téré bi rek téré bobu moy téré bi nga xam ni daf ñu ci misal jafé jafé jamono bu amé te bëgg a jafé jafé ya nañ dellu ci alquran. Mhm. sëñ Jibril alquran mooy teraanga yi addina mooy ju àllaaxira ku bëgg teraanga saxal ci alquran mi. Mhm. ku bëgg a mucc ci say noon saxal ci alquran mii mhm. moo tax mu ne tafaarax naa al wa shakk wal bala bihi wa unil xisba baxda intifaayil jat bi nee na تفارغنا الأحداث تقلق وانا معك سمعي النون سمعي النون سمكو ننسين خلو بكان سوري نجمة وشاكو نوليني تودي دوتي سيكي ساكا اسكا يوم الخيامي يالا دانا مبغل جامي اسكا يوم الخيام دي دي كامنا من يالا ديني نكو تيمن وشاكو والبلا لب لي مصيبة دي الله سوري نمكو من بيهيج القرآن لاكو أمينك وأونلنا القصبة من تي القرآن لا أمي ناتانجي moo tax ma ne ku bëgg naataange del jàng alxuraan uh-huh. mu ne ci alxuraan laa amee naataange uh-huh. ñu ne ko naataange ji kañ la ñëw mu ni baax dan tifaayil jat bi gannaaw ba bekkoor deme damaa jàng alxuraan rek naataange ñëw bekkoor dem bekkoor dem uh-huh. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ko yàlla wax ci alxuraan sallallahu alayhi wa sallam dafa jógee madinatul munawara dem xaswatul uhud yàlla dogal yéefar yi gañe leen gañaay lu metti ba amna ci julit ñi sax ño xamni ni ndaw daw nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi xare bi jexé mu waxu dugg ci wenn xur di noppulu nga xamanteni abu Sufyan, mi nga xani mo jité won xare ba defé ni rey nañ yonent bi ndax bobu ku ñu wax ibnu qami'a mom mo yuxu ca kaw ni rayna bi fekk dafa am benn sahaabi bu nuru woon ak bi sallallahu alayhi wasallam mom la ray defe ne bi la ray mhm. mu yuuxu ci kaw ni rayna naa bi sallallahu alayhi wasallam ci la Abu Sufyan waxee ni kon nañ arrêté guerre bi guerre bi jeexna waye bi nga xamé ni Abu Sufyan xex bi jeexna ba mu dem ba ca yoonu Makka da wàññi ko taxaw dal di yëkkati kaddom ci kaw ni yeen julit ñi benn ak benn gañe ngeen ñu Badar nañ leen Uhud mhm. léegi ñu ngi leen di jox randiw déwén ci weer wi ci waxtu wii Seydina Omar ni bërit ni yonant bi ma tontu ko fekk dani ñun sun seen yàlla ji leen dimbale woon Badar minit sun yàlla ji dimbale nañu fii ci Uhud Omar ni bërit ni yonant bi ma tontu ko yonant bi ni ko tontu mu ni ko Abu Sufyaan waxoo dëgg ñun ñoo nekk ci dëgg lu yàgg yàgg yàgg ca toraxtaange ngeen jëm bu ngeen wëññi ko wut Abu Sufyan digi kaddu Seydina Omar ni ah waaw kooku Omar ibnu Xataab mu ni ko ndax Muhammad ngi dundu mu ko mi ngi lay deg mi ngi ni lol nak taxna Abu Sufyan dem ba ca yoon wa mu dal di jël ben euh, arabiyu fay ko alal ni ko legi dama bëgg so demee nga xëbalal ma yonent bi tiitalal mako so soo ne ko Abu Sufyan para préparé wat na minen mbolo mu ëpp mu yoron dañuy jekki li ci len ben yoon biñ ñëwee wax ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi ne ko asbuna allah wa nihmal wakilu gis nga li seigne touba wax fi mu ni ci jang alquran tekkaliko ak samay noon ci la deñ li ñuy tuddé lepp sikki amatuma dute sama dig ak sama borom ci lama yalla téggilé bëpp bala balaa jamono boobu la amé naataange joo xam ne gannaaw bekkor la sun borom lu mu wax yaronte bi li xewé suñ borom ni allasina xaala la umu naasu inna naasa xad jamao lakum faxshaw um fa saadu mu ne fa saaduhum imaanan wa xaalu asbuna allah wa nimal wakilu fan xalaboo bi nihmatin min allahi wa fadlin lam yamsas um suun wa tabu ridwan wala usul fadlil asim ca surat al imran suñ borom ni jullit ñi day bañ leen indilee xibaarub di leen jéem a tiital ak di leen ragal loo daf leen a dolli kóolite dolli leen confiance amuñu sikki sakka ci ni ñom la yalla andal mhm. ci la yam dedet mu ne dañu and ni asbuna allah wa nihmal wakilu ne bañ waxe lool rek man yalla ma daal di ak sama tiranga fan xale boobu bi ni'mati min allah mhm. ma dik ak sama tirange lam yam sa sun suun dara lu ñaaw amatuñ dara lu leen naqari señ Tuubaa ni bima ta jange alquran saxo alquran ci barke alquran lama yalla yàlla dindi lépp lu diw naqar lepp luy sikki sak poli luy le lepp lo xane ni ay jafagn la indil mana tangge. tangé muni saraf bihi miman hadana talaqiya bi ja'il lasi am qad qadad dahbi muni mom seigne touba sarafna saraf bihi xam nga sarfu ñaar la seigne Jibril moy li ñi tuddé bu la nga tuddé ko manam alfadlul xusuusiya ak alfadlul amaliya sarf ñaar la sarf bi nga xam ni faggu woo ko defuloo benn effort yàlla la soob rek fa xaalul li maa yurit mu defal la ko ak sarf bi nga xam ne nag da nga koo mérito mooy da ngaa wettiw ñaq wettetiw ñaq ba sun borom nga yeyoo ko sun borom defal la ko ñaari sarf yooyu moo am alfadlul xusuusiya ak alfadlul amaliya sëñ Tuubaa nag ni ci alquran la amee sarf ci alquran mi hmm. ci la ngoy di ci keur kër yi di ci keur kër yi ba merito ko yalla jox mako lim wax ni sun borom may na ma alquran du caagi nag da sop sun dedet sarf bi la wax saraf naa hmm. sarf bi nga xamni ni da ngay keur kër yi ba merito ko sun borom may ko alquran bo gisee muy wax ci mbindam nan sun borom neena ma lulul alquran ak xas alquran ak hadith sa mbind mi gënal yow seigne touba hmm. ahabun من غير القران والحديث لا واخ ني سون بروم كو واخ ياو سيغ توبا سا وين بيند و بيند غيناو القران اك حديث سا وين بيند و بيند موما غينال منين بيند مودول موم كون القران موي بروميير بوزيشن حديث دوزيام بوزيشن خسيده دوغا نيو موي تروازيام بوزيشن موني نك موم تي صرف بي تي لاكو يالا ديفالي تي بركه القران لاكو يالا ديفالي صرف بوبو موني نك ci la ko yàlla ubbile bunt yi nga xam ne ci lay orienté nit ñi ci alxuraan. Mhm. lay orienté doomu aadama yi ko topp. mu ne jamono boobu nag ci laa dajeek tiraanga ma wàññi ko nag nekk taggaakoon yonant bi la alayhi la sallam sama aada léegi mooy tagg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. nga xam dafa dem ba aadaam moom mooy tagg yonant bi xam nga. amna na ñoo xam yeneen aada lañuy aada wa amna na ñoo xam ne seen aada moy ba lañu genn seen buntu kër tour ndox amna na ñoo xam seen aada moy nangam mu ne moom aadaam moom sëñ Tuubaa mooy tagg rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun borom neena na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci alquran inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sëñ Tuubaa amul daram loy top mu genn alquran mm-hmm. daram daram génnul alquran do do jang wenn bayitam te mënoo Al ci alquran mhm. def ko li ñuy tuddee mu xaarana mhm. na ma ci muxaran xaarana bi nag genn mhm. xasidaam goy jang wala benn beyitam te mënoo lip ci alquran ballaloo loko fa amut lepp lu mu wax rek man nga ko delloo ci alquran bo delloo ci alquran da fekk ko fa ba nga dem ci sunna fekk ko fa wax nak mu ni moom sarfu mi ngi ko amé ci barke alquran mu daldi di ni mom adam legi moy tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ma wax ni alquran daf ni yéen jullit ñi bu fekkee ni gëm ngeen yàlla ak yonantam na ngeen di tagg yonant bi guddi ak bëccëg ndax man yàlla maak samay malaaka fuñ toll ñu ngi tagg yonant bi mhm. inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha lasina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mhm. xasida gi nag eh, sëriñ daara yi war nañ cee góor góorgóorluwaat jox ko donga yi ñu di ko jàng mhm. ndax yàlla xiir leen ci ñu nangoo toog ci daara yi jàng ko mhm. ndax jàng xasida gi day tax a bëgg alxuraan même bu fekkee xamoo li muy wax mhm. jàng dana tax bëgg alxuraan kon nag loolu conseil la bu may jox sëriñ daara yi ci ñu fexe ba donga yi di ko jàng ci daara yi ndax yàlla xiir leen ci bëgg alxuraan mhm. ndax kat am na ñoo xam ni daanaka danañ dem ba alxuraan dañ koy xaw a gannaawal te fekk mooy première position dañ ko war a jiital loo cay teg door ko caa teg. Mhm. sëñ Tuubaa it loolu la jàngale. sëñ Tuubaa loolu la jàngale radiyallaahu kon nag su ko defee xasida gaangoog ñu ngi ñaan suñu borom tabaaraka ko taala lépp lu ci aw yiw mu def ko ci suñu téere jëf. Mhm. Euh, luñ ci juum suñu borom jéggal ñu ko rabbi wa jàlla. Mhm. Euh, lépp loo xam ne nii lu ci juble nag ci mbaaxu yàlla rek. ñu dellu ndokkeel leen gërëm leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. kon mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci teewlu bi ak bàyyi gi xel. jotaay yi nga xamanteni mom moom def ci khassida yi jeere ngeen jëf wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Yeah. jalla jalaaluhu bi asaabihi